ak njaboot sëñ Tuubaa gi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu sa nattagoo ministre boobu noonu di nuyu sa collaborateur yi nga ànd ak sa collaboratrice yi di tàmbali samay kàddu heure bi daaw am na sa benn collègue bu fi ñëwoon mu ñuy wax docteur Pa Ablaye Seck fi nga toog moo fi toogoon di défendre bis bi nga xam moom ko waroon a woteel yàlla dogal na tey toogu fi loolu lépp ay jàngal la yoo xamante sama boroom moo koy wane pour que ñëpp ñu mën si jël xalaat ak xel am na ñu toogoon fii daaw bokkoon ay député ren tooguñu fi heure bii nii il faut que ñun bu ñuy wax ñu xam ne peuple bi la ñuy waxal moo moom moo ñu fi yabal ndax sànq ni am na suñu benn collègue Moustapha Cissé Lo bi muy wax tey jii ñi taxawoon di wax ñoo ko doon tàcc te ñoom bi ñu ànd ak Macky ñoom ànduñu woon ak Macky Sall il faut que ñu xam ni réew mi dafa am nu ko war a doxalee. man baykat la sëñ Touba moo jur sama maam moo di taawam lépp lu may wax lu nekk yàllaa tax ma di ko wax maa ngi bayee dëkk bu ñuy wax Darou Salaam Aliye Touba Doli commune bu Gent Paate fa samay tool nekk waaye maa ngi sant bu baax a baax a baax ministre bi fi nekkoon muy ministre agriculture ndax jàppale woon nañu jamono yi nga xam mi ngi fi woon ci suñu mbay di sant aussi Sané mi nga xam ne moo nekk directeur bi di am tuuti ay leeral yoo xam bëgg naa ñu ñu mu am mooy yéen ministre bi il faut ngeen def ay communiqué ndax mënuma concevoir nit nekk fi ba jóge fi ñetti fan yëpp ñuy jëbalise naan jënd na béy bu jigéen fanweeri junne ak ñett ak ñaar téeméer jënd na ginaar nangam te loolu lépp man mii di wax ak yow jënd naa béy ñeent fukki junni Moustapha Diop mais jënd na juróomi béy un kon Moustapha Diop mais barki démb bëy yi du bëyu Sénégal bu ñuy wax li ñuy wax ni bëy yi ñu ngi koy jëndee Inde lay jógee bëy yi boo ko amee tey yaakaar naa ne mën nga am presque vingt litres par jour ci meew kon yaakaar naa du bëyu Sénégal bu ñuy wax loolu taxu ñuy wax bu ñu taxal deru yi nga xam mooy deru ñi nga xam ne ñooy techniciens yi ak ñi fi nekkoon loolu ñi fi nekkoon ci Ablaye Seck ñoo fi nekk ba léegi bu loolu amee ngeen def communication wax ni bëy yooyu noonu bëy nangam nangam moo gën ko ñu yàq deru jàmbur ci loo xamante guñu ko fenn loolu su waaye monsieur le ministre mbirum gerte gi ku ne xam na ni y a un problème ndax fi mu toon tey jii lan taxawal prix yi mais man mii wax ak yow maa ngi yebal samay camion ñu ngi jëm ci àll bi maa ngi jënd 285 di indi Touba di xolli di jaay seen mais damay liggéey dama am sama xaalis boo xam man maa ko moom sama bopp maa ko liggéey bon la may jënd gerte pour bët bénéfice mais yaakaaruma si état bi kon bu fekkente ni état bi tey mi ngi jënd 210 nga dem Touba Alieu marché ba samedi la nga jógee fa jëm maanaam kër Samba Ndaw kër Gouma la kër Mbay Pël yooyu yëpp mu ay dëkk yoo xamante ni fa laa jënd ji gerte état bu dee jënd 210 ma jënd 285 man maa leen dëpp gerte te Touba laay jaay kon dafa am yoo xam il faut que ñu jéem a xool nan la ñuy encadrer pour baykat yi ba nga xamante ni ñoom bu ñu bayee ba noppi danañ jël seen gerte jaay ki nga xam ne moo gënal ëpp la te ñu mën leen encadrer pour que ñu a amaat jiw pour boobaa ndax a am lu mu wàññi jiw dinaa si mën a am lu mu dundee mais boo ñëwee ne 210 te yow mi nga xam ne yaay jënd il faut ñu indi ko pare nga doog ko jënd 210 y a un problème ndax bu njëkk seko moo amoon koppee amoon mais yëpp te gis duñ ko il faut que ñu jéem a delluwaat si mel noonu pour que ñu mën a gën a taxawu jige baykat yi aussi li nga xam moom laa si waxaa rek boo demee Touba tey ku si mel ni Sonacos ak waa euh, Racia am nañ ay accords yu ñu signé mais am na fi ñeneen ñoo xamante ne bokkul Racia te tey ay xale yoo xamante lu dul deux cent yoo xamante ne organisé woon nan pour que maanaam di jënd gerte di jaay il faut que ñu dugal leen ci mbir mi te waxtaan ak kii ndax kilifa diine yi ñooy ñi nga xamante ñooy euh, ñooy yore mbir mi pour que ñu mën a débloquer li nga xam mooy situation bi ndax tey jii ñoom li ñuy bay mu euh, euh, ay grand producteur yaakaar naa ni am na ñoo xamante tey ñu ngi wax bayuñu ko kon il faut que ñu sàmm loolu te encadré leen te jàppale leen fii il faut que ngay déglu ñëpp jógee nga président de la république fii la nekkoon moom ñun ñoo nekkoon ñu nekk fi am nañu bari ñoo xam ñun ñoo nekkoon am ñu nekk fi ñoo xam ñun ñoo nekkoon yëf yi dafay passé mais li nga xamante ne mooy euh, institution bi du pa du jàll kon il faut ñu sàmm yëf yi te aar ko ndax ñun askanu moo ñu fa tax a toog mais bu fekkente ni tey bu Moustapha loo waxee ñu ne ko li ngay wax dëgg la bu kenn waxee nekk fee ne ñu xas ko loolu amul njariñ te aussi il faut ngay jël si ni boroomi xam-xam ñoo fi nekk tey mënuma concevoir tey lu mat fukki ministère nekk opposition fii benn ministère ancien ministre nekkutoon nekkul au pouvoir ñi fi nekk ay ministre yëpp si opposition bi lan bokkoon mais ñooñu am na am na lu am na xam-xam bu amee te ñoom ñoo fi nekkoon ak Macky Sall man bi ma ànd ak Macky Sall 98 ma koy xam mooy fekk fi sama bureau papa deuxième vice président assemblée nationale ah fi fi présidente bi nekk tey jii mais boobu xaw moo ñi kon am na loo xamante ni dafa am